Euh, tey dañuy ni nga ah, sacs les nouveaux sacs à dos. yi nga ils ont été révolutionnés. alors tout le monde sait qu'aujourd'hui les gens ils ont toujours besoin d'un chargeur. avec lequel ils se baladent ils ont besoin tout le temps de charger parce que parfois nga nekk ci connexion internet bi connexion internet ça bouffe euh, beaucoup la batterie. Euh, quand tu es sur Snap quand tu es sur les autres réseaux et tout. une pochette voilà donc tibir biir sac yi léegi sac à dos yu bees yi ñu dañu intégré tibir ben nu mu tuddati euh, power bank. dafa am benn power bank boo xam te dañ ko intégré ci sac alors ci à travers power bank boobu di nga charger sa téléphone à tout moment charger bépp support boo xam te dafay jël clé dafay jël câble USB tu peux le charger dessus. alors non seulement voilà c'est inséré ci biir ci sac bi ba c'est quelque chose que tu portes en fait manam à tout moment où tu as vraiment envie yow déjà da koy recharger ba mu fees boo recharger ba mu fees dafay mel ni benn euh, power bank bo fe bo recharger ba mu fees rek ñu bu nek ci biir sac bi heure bo soxla da ngay câbler nga daal di branché. chargé xam nga la moom si gën neex man. parce que sax tu m'en as parlé moy mm-hmm. <laughs> code bi kenn du la sàccati. voilà. <laughs> Il y a un code de verrouillage Il y a donc y a un code de verrouillage. ok ah waaw boo xamante ne tu sais bi ah waaw ci saag bi. boo xamante ne kenn dootul mënati Quel autre monde bon te te kaay ma wax la benn <laughs> affaire lancette lancette boobu ngay jël di ko xotti balaa ngaa xotti di nga sonn. parce ah, que qualité qualité ou tissu bi ci boppam utiliser pour sac boobu. moo rigide ah, dafa am compartiment. compartiments dafa am compartiment. donc qualité sac bi c'est une qualité de sac très rigide. alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand tu achètes un produit tu achètes de la bonne qualité. imitation mënul donc vraiment ñi di jënd nañu xool ba pare qualité produit bi sac bi boo ko xoolee non seulement euh, tissu bi nekk ci kaw sac bi rek dafa rigide. Mhm. tissu bu dëgër këcc la. comme armée sans compter ni mu dëgëree noonu intérieur bi yëpp dañ ko buuree am na benn matière bu ci nekk boo bu dëgër tamit bu ci biir ci biir la def compartiment yi nga donc ñu def vraiment de telle sorte que norme euh, design bu rafet lañ ko def ba utile partie bu isolé je pense voilà partie bu nekk dafa isolé ba pare ci dafa euh, isothermie la femme a une poche isothermie. Quand tu, prends du, quand tu as du chaud et que tu veux que ça conserve le chaud, tu peux garder ci Ça dépend du modèle que tu Parce que modèle est de bari en fait. De plus en plus, les ça pas isotherme presque. Tu peux mettre du froid, nous conserver froid. Tu peux mettre du chaud, voilà. Nous conserver euh, ah. chaleur. Voilà, moi, ça qui voilà moi ça gis nga modèle yi ni ñu il y a différents types de modèles modèle bu nek ak ni modèle bu nek ak nombre de poches bi muy am ak nombre de compartiments bi muy am yow yay xol selon utilité bi nga am ci sac bi tu l'achètes man par exemple j'ai un sac de bébé un sac bébé on peut appeler ça un sac de bébé c'est isotherme sac bi sac au dos ay poche yu dul jeex ñoo ci nekk poche bu nekk ak li muy def dañuy dañ la defal poche bi nga xam fa def bi pour conserver ko poche bi nga xam ne fa ngay def pour lekk bi pour conserver ko ça garde la température poche yi nga xam ne fa ngay def yëre yi fa ngay def lii fa ngay def là y en a énormément c'est un sac que moi-même je peux utiliser sans pour autant même euh, pour, pour même faire mes voyages etc un sac au dos très stylé camping. voilà pour camping et tout et en même temps euh, c'est un garde-manger pour les, pour les enfants à la base, c'est fait pour les enfants, mais tu peux l'utiliser à d'autres trucs comme l'ignore tout le temps. Alors, ça aussi, c'est la même chose. Ça peut être un sac de travail, ça peut être un sac de voyage, ça peut être un sac de tous les jours. Hein. <laughs> Après, utilité bi, moi, je nga, chef, il ben ben mécanisme. voilà comme par exemple ah, mécanisme mécanismes mhm. pochette bi dañuy def ci biir lépp li nga xam te lay charger téléphone bi en sécurité en plus et puis tu sais Tata Mbaye il y a un truc bi nga xam dafa sonal mini. mais imaginez tey nga Gambie fan ngay fan nga chargé sa téléphone. doo ko xam sax. li c' est la solution. imagine la nekk xool ngay voyager dem États-Unis wala nga dem euh, France c' est six heures de vol grave mais États-Unis six heures wala sept heures après nga war a def ay. immigration trois heures temps tu fais facilement oh, douze heures. Oh, ça ça teel Dakar New York neuf heures la. Bah, voilà après nga soog a kay. Bah, et puis sa waay nag kii li mu wax dëgg la de lii day dimbale gars yi. mais non ba pare sax loolu parfois nga dem benn endroit boo xamante ne te sa téléphone bu déchargé da ngay wut chargeur. da ngay àbb chargé jël sa téléphone chargé ko fu la sori. ak ban prise. ak di wër prise wala nga chargé ko foo xam ne fu la sori sax. Ah xam nga boobaa coono la. Mhm. ndax chaque fois yaa ngi obligé di déplacé wu di dem xool ndax woo la wala woowuñu la. waaw ah, loolu yëpp c'est compliqué. tey bu fekkee sac à dos bi yow yaa ngi ko yor parce que sac la boo xam ne tu le portes à tout moment da dugal ci biir sac bi rek nga branché nga chargé yow déjà gën dal parce que mu ngi sa biir sac na la ne ci sac bi mhm. ko jël tant que génne fa secondo di nga charger tranquillement heure boo soxlaa sa téléphone ni nga ko meuna def continuer sa charge oh. donc franchement li euh, c'est la révolution de l'année et puis j'imagine que ça a une très grande autonomie parce que quand tu as charger ce va ba pare ba mu à 100 mais après ça te donne une grande autonomie voilà c'est ça c'est juste que il faut mini comprendre aussi une chose quand tu charges un téléphone tu désactives aussi tout ce qui est données euh, mobiles tu désactives tout ce qui est euh, da les wàññi luminosité bi pour permettre charge charger mu garde. Absolument alors voilà et te sax y a des chargeurs yo c'est des chargeurs rapides hein. Mhm. da ngay branché man chaque fois na ma ci abal benn boo xam tane dama branché rek affaire bi di waaj a fees ma ne ko saa affaire bi mu demee <laughs> noonu xam nga ce sont des chargeurs multi rapides yoo bah xam ne il est voilà donc euh, moom ñoom ils connaissent ces genres de trucs là parce que avec leur boulot ils sont obligés d'avoir toujours euh, cher doo may chargeur boobu ah voilà donc chargeur boobu da ngay branché rek waaye mu mel ni léegi ni kii voilà mu raccak mu fees mooy des chargeurs euh, rapides yi nga xam te ne ñoom ñoo génn léegi tout juste pour aider les gens à pouvoir être plus autonomes ci fonctionnalité ak une donc je pense qu'aujourd'hui c'est c'est voilà c'est l'avancée de la technologie hein. on est arrivé à un niveau où il y a de ces détails qui ne doivent plus arriver au fait Voilà il faut avoir euh, vraiment les, euh, il faut il faut faire les bons choix. Mm -hmm. Quand mhm. on est traveler, comme on dit, voyageur, un grand voyageur, il faut que ngeen gànnaayoo ay ay ay matériel yo xam ne dafa leen di permettre ngeen autonome. Euh, mën a denc sen lek denc seen documents en toute sécurité parce que dafa am code. donc lolu man lolu mom si gënon euh, intéressant en fait bien sûr pour mën sécuriser. kenn mënu leen sàcc c'est pas possible te xam nga nak euh, même soo jëlee lancette wala paaka di ko xoos si loo xam ni dafay def bruit en fait. ça veut dire que vous êtes même da ngeen di xam vraiment ko laal ngeen xam ko voilà.